comme sama gars yi mbaa jàmm ngeen fanaanoo état bu Sénégal càmbaraat na dossier bi nga xam ne moo doon wax ci wàllu gerte gi ñu wala exporté mbaa ñu deseeg moom fii ci réew mi nee na léegi ñi nga xam ne ñooy soxla gerte gi ñu bayee ci réew mi ngir nar ko génne ci diwlin mbaa yeneen yi dañuy jënd ba noppi ñu door a jaay chinois yi te bientôt dinañ fixé njëg gi ñuy jaayee gerte gi. la doon indi fleuve Sénégal ba doon rogalaat ci kaw waa Bakel ak yooyu gox fleuve Sénégal bu cru ba fa amoon. ca barrage bu Manantali defar nañ ko ba loola dootul am fi mu ne cent dix-neuf gone la ñu jàpp kon ñu jógee jifeer doon def barsamba barsaq marine nationale leen teg loxo kon xale yi ñu ngi jël gaalu looco yi ba ëpp na def Sénégal Burundi la dóor ñaar Abibou Diarra moo sëllëx sëllëxaat bal ba dugg yaari yoon Sénégal gagné qualifié nañ Maroc gana Gambie Guinée ak Mauritanie ñoom kalifé wuñ masta coono Ah, Pape Thiaw dal ne tekki naa samay jajj liñ ma santoon def naa ko ba fii mu yegg démissionné naa léegi nag maa ngi déglu fédération bi ak ministère de sports bu ngeen bëggee ma wéyal bu ngeen bëggut it ma toog lan ngeen ci xalaat wàllu politique ñiy wër di jàngale politique ak xam ko lool ñii nee nañ démb Sonko daa war a dem nekk président de assemblée nationale am na tey yeneen jàngalekat yu genn daal ne fa mu nekk ca primature mooy li jig Sénégal. Amadou Ba yàggut ci chef de l'opposition bi de ñoom président Macky Sall ak euh, parti démocratique sénégalais ñoo ko gagné Papa Samba Boub daal ne naqarlu na lool ni ñu génnee Abdoulaye Wade ku mu doon sa bàyyi doo ko weeree noona ngir bëgg ay nit ñu la woteel mën naa demee neneen assemblée national bi léegi ñu xam fu mu jëm ak ñun techno lu war a tolloog fukki doomi Sénégal ak juróom ñoo fa doon liggéey techno téléphone ñu dàq leen ci da ngeen a sàcc mille cinq cent deux mille te teguñ ko fenn looloo ëlëm ñëpp Pape Thiaw ndax day toog wala da ngeen a bëgg mu dem lu ci mënti am yàlla ñu yàlla may kendal ak jàmm.